kon daal li ñu naan euh, liy dëggal li nga wax mooy gaa ñi jaxal lañ gën a mën ci ndimbal. <laughs> loolu leer na. jaxal daal lañ gën a mën euh, mais loolu am na solo day ñëw nag ci àllkalaaj ji. Mhm. ngeen doon waaj ba mu des dernière minute. combat boo xamante ne nii deux mille dix neuf la woon mu am trois report report bu njëkk bi àdduna bee lëmbe ak Covid kon Sénégal mënu cee mucc. ñu dem ba ci biir mu jàpp date le vingt cinq décembre. muy date historique événement yu mag da ci daan am ligue bi yoon na dama koy delloosi waaye taxul mu sotti euh, mu jàppaat le 13 mars ba dernière minute ñu ne Modou doo daa am blessure nan ngeen ko dundee information bi nan nga ci jotee yow mi nga xamante ni yaa yor euh, Ama Baldé. waaw jërëjëf Max nekk na loo xam ne lii sawar naa ñu waxtaan si maa yow. du nga xam ne jàpp naa ne buñ jógee fii rek Sénégal yi dañu am lu ñu duñu yor luñu luñu luñu capté ci événement boobu euh, ki nga xam ne kii it moom lii Nicolas de passage maa ngi koy nuyu di koo xam ne kii moom it euh, comme ni nga ko waxee ku bëgg événement yu rëy la yàlla dogal na bëgg na combat bi xëy na yàgg naa bëgg a bëriloo ku mel ni Modou Lo xëy na amu doon pas euh, pas maanaam mm, trop boo xam ne bii xëy na dina nekk journée bu mag ci combat yooyu ndax xam nga ne Modou Lo bëri nag ay combat yoo xam ne kenn ku ne bëri na ñoom ñaar yoon mooy tanoor yi fi nekkoon ñoom Gris Bordeaux ñoom Balla Gaye ñoom Eumeu Sène mhm. yam Bombardier benn yoon la moom donc yeneen yi ci combat nga xam ne ki dem na ba sénégalais xalaataw nañ ne moom tàngal ceeb de doy na doyal nañ ci donc ki fi nekkoon nga xam ne kii ñuy ñaari mbër yi war nekkoon nga xam ne combat jànqal war na doon mhm. mu entre diggante Ama Baldé ak Tapha Tine donc ñooñu rek la mënoon a bëreel mhm. donc bi mu demee bu ñu xool ne Tapha Tine ak Ama fi des te Ama moo daan Tapha Tine dañu xool ay la yoon kon Ama Baldé mu war a bëre bëre bëre bëreek Modou muy combat boo xam ne bii ñoom ñaar dañoo dox ba daje. ci ku ba ca kaw nag ndax ku bëreeg nit ki mbappat war ngaa mën a bëreeg moom arène. kon ci wàll yi nga xam ne noonu la ñu doxalee ñun tam ñu ñëw ci ñun wax ñu ko ñu seet xam ne combat bu jaadu la Sénégal bëgg na ko. duñu bañ a dara Sénégalais yi amuñu droit Sénégalais yi bëgg dara ñu la preuve tey jii amaa nga fële mais bu ko équipe nationale soxla woon déedéet dama ko naa jógal dem parce que sa drapeau moom moo la soxla. te réew moo la soxla. kon bu fekkee dañoo am yaakaar ci ne da nga war a yëkkati drapeau Sénégal da nga ko war a yëkkati drapeau Sénégal ndax loolu daloon Double Less Double Less dem na ba ñu ba ñu ba ñu ba ñu copte ko ci mu defi judo te moo mbër la woon. te loolu Sénégal ko soxla woon ca jamono booba mu dem defi loolu. kon bu fekkee ne yàlla dogal na Luc laay dox na tànk yooyu. ñu nangul ko ko Modou Lo nangul ko ko ndax Modou ba boobu du moo Luc Nicolaï rek ko bëggoon mm-hmm. mais nag Luc Nicolaï moo amoon sens pour tëgg combat bi bi mu ci ñun waxtaan ak moom ba d'accord mm-hmm. moom mu ànd ak ay bokkam am ah, itam ànd ak ay bokkam ak i frère am ñu waxtaan nañ ba juboo jamono booba sax ba ñuy dem sax yàlla dogal na yëguma ko damaa dama jékki rek ñu xamal ma ne il faut am na waxtaan woo xam ne gars yi war nañ ko waxtaan ni ñoom ci télévision bi ma dégg ne euh, loolu mën naa nekk bi ñu ma ko waxee te mbër mi woo wax ma ko man ko am benn problème loolu mën naa nekk diggante bi mu woote pour waxtaan yi ak ñoom ñoom ñu dem waxtaan juboo nañu moog frère am grand frère am juboo nañu ci ay dàq ay kaddu woo nañ ma ne ma nangam la ñuy waxtaanee juboo nañ ci ay kaddu nii ak nii ak nii ma ne loolu problème loolu d'accord nañu mbër mi nangu na mun na xool ñaareel mbër mi nangu camp bi nangu camp bi nangu kon bu fekkee ne dañoo dem ba nga xam ne yàlla dogal na ne yu ci baree bari. tey jii Sénégal doon ko xaar. Mhm. muy combat bi waruloo am le vingt cinq décembre. parce que bu fàtte ne deux mille dix neuf comme ni nga ko waxee la deux mille dix neuf la taxaw. waaw li euh, fekk na ki nga xam ne kii mooy Modou nekk roi des arènes. Mhm. Ama Baldé bëri ak Papa Sow suma jubul à deux mille dix sept. Mhm. deux mille dix huit sa bëri ak Eumeu Sène daan ko. nekk roi des arènes. donc li léegi li ci des mooy. diggante 2018 ak 2019 ñu dem ba 2019 combat bi taxaw ci. gis ngeen li ñu fi traversé ci ay ay kile 2019 ñu ne Covid am na ñu dellu si waat première vague deuxième vague troisième am na ci sax ci benn télévision bu mag bu ñu invité woon boo xam ne bii moom en personne am na ñu sosoon ci moom ku mel ni Moustapha Guèye sosoon na ci moom. Moustapha Guèye Moustapha Guèye ba ñu xam laaj ko ci combat bi doo ko ci wax ndax da nga jege liñ di ko laaj moom mu ne moom jàpp nañ ne combat bi du mën a am deux mille euh, le vingt cinq décembre. te boobu régularisé te boobu régularisé nañu ko ba ba mu officiel ma yore sama contrat kenn wooguma laaj biñ ma laajee dama leen man awma kenn fenn wax lu dul contrat bi ma yor CNG ñoo ma jox contrat bi pour le 25 dama jàpp ne le 25 décembre ci laay bëri ak Modou Lo loolu laay jàpp ba su ba cour de ba may am lu leer comme quoi que ne combat bi dinañ ko bëree ou pas wala dinañ duñu ko bëree lu ci mën a xam le cinq bu ma CNG wooyee comme mooy suñu kilifa ñoom la ñuy déglu buñ leen buñ ñu wooyee ñu waxtaan ak ñoom ba xam lan moo tax ñu ñu koy sens dinañu wax li tax ñu di ko sensé. Mm-hmm. diggante bi moom mu def ay médiation moom lig demanteeg moom dikkalante ba ñun ñëpp toog waxtaan woo famille bi waxtaan ak frère am woo ñëpp ñëpp woo ma magam woo ma waxtaan ak man na ma combat bi diggante entre 25 décembre janvier février mars loolu deux mois et demi la donc mën nañ ci war a mën a bëree. ma waxtaan ak sama mbër mu xabal ma loolu ah léegi man du ma mën li tam rallier ci li nga xam ne moom lan CNG waaw ñu waxtaan ak ñoom ak ñoom li ñuy waxtaan ak ñoom ak CNG yëpp ñun maa ngi ko teg xam naa ko donc ma jàpp ne le 25 décembre Boukile ma ne attention de est-ce que le 25 décembre lamb ji na am euh, safar la le 13 mars mm-hmm. xabal ma ne le 13 mars ala kulli lamb ji na am xëy na du ñàkk buñ ci yeggee ci yeneen yi waxtaan ma yeggale la ci li nga xam ne lii moom la ñuy waxtaanoon ba ñuy xamal ma ne la ala kulli àll làmb ji dina am le treize mars ñu régulariser mois de marche dem nañu quelque temps mm, sama mbër nekk Europe. Mhm. di entraîner moom mu nekk fii di entraîner yaakaar naa mu ngi doon entraîner. ndax dama jàpp ne mbër moom fu mu nekk di entraîner. waaye mu ngi doon Sénégal combat bu toll noonu. doon roi ci bi nga bi nga amee ndam bi mooy sa première sortie waaw ngay dajee xale boo xam ne yàgg na laa topp nga ne ko defal say preuve waaw te roi des arènes bi yànkan nanga ko ci Pikine moom mu waree Pikine jëlee ko ci magam kooku boo entraînewul yëpp nga waa parcelle kon man damaa jàpp ne mu ngi doon entraîné léegi xale bi dem entraîné ji Europe ay ay def ay ay daxaram ak démb ak kineem ànd ak i bokkam ñu jàppale ko mu dem entraîner dellu si ne combat bi jege si ne ñu ne ko loo fa jàppoon bàyyi ko te entraîner boo paree boo paree wut ñëwal nga ñu ent euh, kii yeggale sa entraînement bi ndax dañ lay soxla promoteur heure bu la soxla da war teew sénégalais bu la soxla da nga war mu bàyyi lépp ñëw ñëw taxaw première sorti bi ñu njëkk a def rek gis nga ni mu avorté ci demal ndikk ak du ma dem ak dinaa ñëw ak maa ngi ñëw ak du ma ñëw ak dur na ñëw ak dëppaat nañu yooyu yëpp am na ci diggante bi trois fois ou quatre fois muy am ay débordement yoo xam ne yi vraiment ñun dañuy dem sax ba jusqu'à preuve de compte dañuy xool sax ne même sama mbër dafa na ba bu fekkee ne signature contrat day am daal man bu yeboo ñu dagg sama xaalis yëpp waaye man dootuma jara may jóg di dem parce que sunu nawle la comme ñun amuñu droit xëy na ñu woo ñu bañ a wuyu mais moom en personne li muy def nii la ñu xam mooy lan. man rakkam laa moom sama mag rek la moom itam daa war a xam ne man rakkam laa. léegi ak lu mën a xew mag yàgg naa bëri rakkam rakk yàgg naa bëri mag loolu jotewul dara nañ ñëw fo re kaf re loolu wàññiwul dara mais bat léegi loolu amul bu ñu ñëwee ñu ne nangam nangam affaire bi jeex ñu delluwaat fële gis nga ko gars yi def ca benn sécurisation boo xam ne dafa mel ni Macky Sall mu jóge fi dem ca ca. xanaa face à face ba face à ba. face à ba mel ni Macky Sall fay dem. mais loolu c'est grave mel ni guerre. doy na waar doy na waar. kagulee ñëw taxaw. mais est-ce que promoteur bi waxul dëgg parce que fekkee lu leen def ma apporté. moom ay histoire mun leen def face à bu yegg est que jaaduwul it mu déployer moyens yu mel ci wàllu sécurité pour mu mu am te bi mu ñi